télé bi bégal sama askan Ladoum TV Ladoum TV di door nuyu le directeur de l'élevage Dame Sow di si teg le l'honorable le procureur Aliou Ndao di nuyu Euh, monsieur le maire de la ville de Guédiawaye euh, di nuyu président association yi fi teew yëpp di nuyu suñu anciens yi toog fii euh, di la di delloo jukkal euh, di nuyu bépp éleveur bi fi toog tey ak ku dul éleveur di sargal suma frère Euh, le président docteur Niang di nuyu également suma frères les parrains de cet événement muy Lamine Diop ak euh, Sidi Ndaw donc euh, tout d'abord damay commencer rek si féliciter le CEB d'avoir choisi comme parrain ces honorables messieurs muy Lamine Diop di Sidi Ndaw di ñi nga xam ne dañu jouer un rôle très important si élevage bi. waaye tàcc leen loolu waay. Euh, Lamine Diop ñëpp xam nañ suma diggante euh, su ma tuddee Birame Ndiémé rek loolu rek résumé na rôle bu mu joué si élevage. waaw euh, c'est comme Birame moo jur Dieyna te tey jii bépp champion bu ñu wax tey jii jafe na bu bu bu jógewul si Dieyna waxuma nag. Bachir waaw ah. ah, bi nga xam ne ak li si jóge donc c' est un grand éleveur c' bi nga xam ne tey jii mérité na cet honneur là Sidi Ndaw aussi il a il mérite il euh, a il parce que moom peut-être léegi la ko nit yi di découvrir mais yàgg na bëgg élevage yàgg na si élevage bi parce que man bi ma koy Lamine Diop di présenté ça fait à une quinzaine d' années te xar moo taxoon mu présenté moom donc euh, te moom it aussi dugg na si si anam yu rafet ñëpp la jox cër. nit ko am cër la. te euh, investir na si élevage bi gis nañ ni mu ngi jàppale xale yi mu ngi jàppale aussi association yi te mu ngi liggéey liggéey bu set aussi. parce que tey jii affaire bi élevage du affaire moyen élevage liggéey la xam-xam la. Mhm. Euh, méthode la te macha allah méthode boobu am na ko parce que tey jii xëy na a quelque temps ñu ngi doon gis muy dugg si concours yi. avec des sujets qu'il a achetés, des gagnés, mais maintenant il gagne des concours avec des sujets qu'il a lui-même produits. Mm-hmm. foofu la ñuy commencé nag ràññee éleveur. Mm-hmm. Euh, leneen lii nag di leen di féliciter docteur Niang encore si organisation bi euh, di wax di profiter également euh, tey jii période bi ñu toll mënuñu fi wax te du ñu vraiment am une pensée. jeunes si suñu euh, frères yi suñu papa yi nga xam ni dem nañ lu yàggul euh, muy père Kiifa ak euh, notre frère Omar Sow Kiifa tey jii suñu toogee fii di def foire di def lu mel nii ah war nañ war ko si remercier bu baax a baax parce que moom ak suñu grand yi suñu paa yi toog fële ñoom ñoo njëkk foire ñoo fi njëkk def foire ñoo fi njëkk def association donc loolu dañ leen si delloo njukkal bokk na si aussi bon si su ma gis-gis moo fi njëkk a tabax bergerie su ma waxee bergerie nag mooy jëm bergerie boo xam ne bokkul ak sa kër ah, dafa la xar yi dafa la leen kër kese loolu def na ko fi investir ay millions yu dul jeex ah, di di di liggéey ñun tey ji suñu demee ba def suñu bergerie xëy na foofu lañu ñu inspiré wu ñu gisee mu def loolu ñu nit ñu ah, dem créer suñu bergerie donc foire bi ñu fi njëkk a def këram lañ ko doon def këram lañ doon def foire yi ba ñuy xëy dem euh, place de l'Obélisque après xëy dem 4C euh, jóge foofu dem si ses ba tey jii ñëpp di roy si euh, saladam bi Omar Sow tamit comme ni ko jël war waxee c'est quelqu'un bi nga xam ni vraiment amoon xol bu yaatu te amoon mbébét élevage Sénégal jëm kanam amoon mbébét boole éleveur Sénégal yëpp loolu ñun ñëpp xam nañ ko si dernière fois yëpp loolu rek moo doon nekk discours am te man chaque fois que ñuy wax waxu booloo rek la ma doon wax te booloo boobu daf ko moom daf ko daf ko daf ko euh, concrétiser euh, fan la jiituwee foire fekkee ma la xëy mu ne euh, président Abou dimanche prochain ñu ñëpp sa kër la ñuy yendu dimanche boobu mu jël waa Renades yëpp ñu ñëw yendu sama kër et depuis boobu bàyyiwul depuis boobu amul lu muy def te du ma si associé ba suñ ko euh, parrainé foire sax moom commencé dee ne non non boo leen si avocat docteur Niang xam na lu may wax euh, ñoom foire bi man lañ fi njëkk pare parrainé mm-hmm. ñu teg si ñaari at ñu parrainé docteur Niang mais daf la ñu parrainé euh, Omar Sow mais daf la ne non non dañ koy def co-parrainage. Mm-hmm. maanaam avocat moo ko def de. il a fait la même chose à Touba il a fait la même chose à Mbour mm-hmm. et ailleurs donc am moom mosul nangu ñu def dara. boole ko si moom def ko moom kese bañ ma si boole. te ya lu ne reyante na def na du tout pour que nit yi booloo benn nekk benn. ñun amoon nañu projet boobu man ak moom te projet boobu yemul woon rek si éleveur laalu bi projet boobu si élevage Sénégal yëpp na dañ ko toute filière confondue parce que dañu ne woon dinañ créer benn cadre de concertation bu nga xam ni euh, filière yëpp ak euh, président yëpp dañuy boole def benn benn benn comité restreint bi nga xam ni. état bi dina am benn interlocuteur muy ñooñu parce que man ak moom dañu am chance chance bu ñu am mooy tey jii euh, association yëpp la ñu mën a waxal tey jii suñu demee si suñu mbokku élevage extension extensif suñu mbokku pël yi tey jii ñun duñ leen wax dañuy déglu suñ demee si borom fas yi naka noonu suñ demee borom mbaam xuux yi ainsi donc amoon nañu possibilité wax ak ñëpp ñu dégg ñu te commencé woon nañ liggéey loolu mais loolu balaa ngay dem ratisser le large sa biir kër d'abord ngay ngay ngay ngay boole te jii am na lu président Djibi Wade wax waaw ah, am na lu mu commencé woon ah, euh, pour sa mémoire loolu nañ ko yeggal yi parce que li ñu doon wax mooy fexe ñun ñëpp ñu bokk benn kuréel kuréel boobu existé na mais lan moo tere ñi nga xam ne bokkuñu si kuréel bi nañ ñëw. Mhm. bu fekkee nit ki am na lu la metti ñëwal si kuréel bi nga wax bu fekkee am nga xam-xam booy joxee ñëwal si kuréel bi nga joxee xam-xam boobu bu fekkee danga nga bëgg plus de démocratie ñëwal si kuréel boobu nga nga nga nga wax si sa bu fekkee am na lu ñuy xeex nañ ñëw si kuréel boobu bu fekkee am na lu ñuy euh, créer wala lépp lu ñuy def daal ñu ñëw si kuréel boobu. Mhm. état bi tamit am un seul interlocuteur wax ak kuréel kuréel boobu donc ñun loolu la ñu bëgg. moo tax tey j'en profite euh, pour lancer appel ñu mel ni waa SEB tey jii le président docteur Niang c'est l'une des rares de l'une des rares grandes associations je dis bi nga xam ni euh, bokkul FENAFO sinon je dirais c'est la seule grande association bokk FENAFO mais sinon ñeneen ñëpp bokk nañu et je pense que euh, après cette fois si bu passez ils le feront ah donc je je je je lance un appel solennel à toutes les autres associations yi nga xam ne bokkuñu dañuy ñëw. ñu booloo bokk bokk bokk ndab lii mhm. képp ku am loo ngay wax nga wax ko foofu képp ku am lu ngay def nga def ko foofu parce que sous peu de temps on va tout restructurer parce que euh, kii ad avant yi euh, prévoir woon ay postes yu bëri euh, maintenant on est en train de revoir sax pour que association yëpp ku ñëw adhéré mën a am poste pour que ñun ñëpp ñu mën a liggéeyandoo mais loolu nag il faut que ñun ñëpp ñu xàccandoo dóorandoo comme ça se fait dans les autres yi nga xam ne élevage dafa développé Sénégal tant que euh, amuñu benn amuñu amuñu. Euh, euh, benn boolewuñu nekk nekk benn ñu am benn kuréel kese suñu élevage du dem fenn. Maroc gii laa jóge bàtti démb si salon bu mag bi nga xam ni. tey ji ñoom dañ leen di comparé ak salon tubaab yi. est-ce que xam ngeen ñooñu tey ji Adam moo leen njëkk a foire ñooñu ay 2005 2007 la ñu commencé foire. Mhm. ça veut dire que moo leen si jiitu dañ ko def benn yoon ñaari yoon ñetti yoon état bi ñëw. dugal si loxoom fu mu ne nii c'est un salon international. ñu fay ñëw euh, si si en quatre jours c'est plus d'un million de personnes ñoo fay dugg donc loolu yëpp lu ko waral mooy booloo. donc nañu booloo nekk benn pour notre euh, dans l'intérêt de de tous suñu booloowee tey jii matériel yi ñuy dépensé si si si foire yi. association bu nekk débloqué quinze à vingt millions pour def ay chapiteaux ay ay barrières ay n'importe quoi loolu mun nañu teggeeku ah ak leneen ak leneen. donc euh, loolu senior éleveurs yi di leen si euh, vraiment euh, remercier parce que xam naa ni tey jii su fi jógee peut-être que les choses vont changer et que les gens dinañu adhérer à la cause de l'élevage leneen lii peut-être bëgguma si woon dugg sax xëy na mais docteur Mounian me l'a demandé c'est un grand frère c'est un ami je vais en profiter juste pour wax ko parce que c'est bon aussi c'est pour éclaircir parce que vu ma position aussi de président de la FENAFO ñëpp dégg nañ ni j'ai lancé des journées portes ouvertes euh, de la bergerie Galoya ces journées portes ouvertes là nag du foire ces journées comme portes ouvertes du pour concurrence association yi ça n'a rien à voir avec ce qui se fait dans les, euh, par les associations lii euh, euh c'est les journées portes ouvertes de la bergerie spécificité bergerie bi la ñu wone parce que man tey jii su ma xoolee suma page Facebook suma message yi dafay éclater j'ai plus de des centaines de milliers de messages yi nga xam ne mënu ma si tontu tey c'est des gens qui me conseil des gens qui demandent lan mooy bii kan moo ko jur kële kan moo ko jur ainsi de loolu yëpp baax na ñu matérialiser ko si benn événement bi nga xam ne ku bugg a xam xale yi jógee Galoya kan moo leen jur fu ñu jaar ba egg fii nga di nga ko xam ku bugg xam euh, naka Galoya nan la ñuy euh, doon euh, defee seen i sélection ba am yenn champion yi. di nga ko xam ku bugg a xam ñun suñu méthode pour alimentation di nga ko xam ainsi de suite ainsi de suite donc loolu ça n'a rien à voir yi ñuy def nii. donc Aboukan président FENAFO euh, ñëwul pour concurrencer les associations dafay def loo xam ne innovation la te dafa nekk rek yoon bu may def bu may won pour euh, bu may def rek pour won éleveurs yi exemple que à travers leur bergerie il pour faire des petites choses yi nga xam ni pour se en exergue sans pour autant euh, faire du mimétisme parce que tey jii mimétisme bi moo ñu tardel diw day def dara rek man ma def dara rek keneen def la même chose après mu saturé tey jii foire yi ñu gis nañu foire yi dafa saturé on fait la même chose c'est les mêmes moutons partout c'est les mêmes éleveurs partout c'est tout le monde partout donc loolu euh, c'est des choses yi nga xam ne innovation dafa am solo bu baax donc loolu euh, li si des li nag dinaa wootee euh, daje bi nga xam ne dinaa gën a détaillé affaire boobu mais c'était juste pour attirer l'attention des gens sur par rapport à à cet événement là di jaajëfal suñu sponsors yi toog fii yëpp yi nga xam ni dañuy jàppale élevage bi sans vous tey jii élevage bi du toll fu mu toll di jaajëfal aussi les communicateurs la presse et tout le monde di leen di sama askan